kon maa ngi leen di nuyu bunt bi ñu war a waxtaane ni ngeen ko dégg mooy xuququl jiwaar mooy àqi dëkkandoo boo gisee nag bunt boobu doon loo xam ne bokk na ci li jullit war di fàttalante di ko nafar doomu aadama suñu borom tabaraka wa taala da koo binde noo xam ne fokk ci mbooloo lay dund mënta dund moom ket looloo tax kon dana aajowoo luy nooyal di yombal digganteem ak ñi nga xam ne ñoom lay bokkal di dund ci kaw suuf bañ mën a dund ci jàmm mën a weccente ay njariñ waaye mën a tegalante itam ay lor ndax doomu aadama li muy soxlawoo ci dund bi dundam laaj ko da koo mënalul boppam dangay ngay man dara tële leneen amul kenn koo xam ne li ngay soxla lépp ci sa dund mën nga koo defal sa bopp suñu boroom tabaaraka wa taala moo wax ne li nga xam ne mooy doxal dund bi dama koo séddale ci seen biir nahnu qasamna baynahum maichatahum fi l xayaati dunia qasam naa la wax nee na man maa séddale ci seen diggante maishatahum seenub dund li ngeen di soxla ci dund bi maa ko séddale wa rafaana baadahum fawqa baadin darajat li yattaxisa baaduhum baadan suxriya wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmaun mu ne rek biir séddale boobu yëkkati naa ci ñenn ci kaw ñi ci def ci ay daraja am na ci ñoo xam ne la leen ci yàlla sédd moo gën a kawe la mu sédd ñeneen ñi waaye nag amul dara lu ca mën a manqué mu ne nag waaye yërmande yi suñu borom tabaraka wa taala fexe ba am ko moo gën li ngeen di dajale ci àdduna maanaam kon nit ñi seenu gënante nekkul ci cër yi ñu am fii ci àdduna waaye nu ñu jëfandikoo cër ba yàlla mën na laa jox cër boo xam ne sax xëy na am na ñu la ëppale waaye nga rafetal noo ko jëfandikoo tax nga ëppale ak pay ëllëg moo tax mu ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ba xam kan ci yéen moo gën a rafet jëf liñ ko dox jëfloo ko ko bu ko rafetalee rek ci la ak payam di aju ca na mu rafetale jëf ja bokk na itam li tax ñu war a waxtaane bunt bi mooy xam ngeen ne yowmal xiyaam ak yi nga xam ne dana dox diggante nit ak moroom ma mooy li nga xam ne moo fa gën a garaaw bu fekkente ne bokkaale jàll na ndax bokkaale moom moo gën a garaaw ci bakkaar yépp yoo xam ne doomu aadama dana ko def waaye bu bakkaaru bokkaale jàllee beneen bakkaar bi gën a rëy mooy bakkaar bi dox diggante nit ki ak moroomam nitam ndax bakkaar la yoo xam ne moom da koy tuub waaye itam delloo aq ya bu dee aq yoo jëloon ay alal yoo jëloon nga delloo ko seeni boroom bu dee tooñ yoo leen tooñoon ci yàq seenu der xas leen nga jéggalu leen bu fekkente ne loolu amut bu yomal xiyaamee suñu boroom tabaraka wa taala ko maandu la day atte seen diggante ci maandu te bu boobaa bu boobaa bor yooyu mënee su ko fayee ci wurus wala xaalis ndax loolu amu fa lañ la fa am mooy ay ay tuyaaba ak i bàkkaar yomal xiyaam loola fa am benn ñu jël ci say tuyaaba yu baax yi nga am faye ko ñi nga tooñoon wala ñu jël bakkaar yi ñi nga tooñoon jox ki nga xam ne moo leen tooñ loolu nag bu boobaa perte gu rëy rëy rëy lay doon te ku ne xam ne ne bakkaar yooyu tam ñi ngi koy séqal mooy doomu aadama yi nga xam ne dëkk nga ak ñoom ma sa moroom yi doomu aadama yi nga xam ne da ngeen di déggante rek ñu nekk fu sori nga nekk fa nga nekk yow it feneen fu sori kooku ay àq yuy dox seen diggante dëgg la mën naa am waaye nag du egg àq yi nga xam ne danga koy séq ak ki nga xam ne moom da euh, dëkk ak moom moo tax kon waxtaane bunt boobu nekk lu am solo dëkkandoo nag buñ ko dee xamle dañuy wax ne mooy koo xam ne dëkk naa ak yow jiwaaran shar'iyan maanaam dëkk woo xam ne dëkk yi dëkkiinu yoon la koo xam ne fi mu dëkk dëkk na fa ci yoon waxuñu rek koo xam ne dafa ñëw euh, dëkk ci foo xam ne na mu fa dëkkee du noonu dafa këf kër jàmbur dëkk ca wala mu ñëw rek bokkatu fenn foo xam ne kenn joxu ko fa ndigal waaye ki nga xam ne dafa ñëw am kër ci sa wet wala mu ñëw luye fi nga kër gi nga xam ne fa nga luye moom it mu luye fa wala ñu abal ko fa wala daal nu mu ko mën a moomee ba tax mu sëñ fa dëkk ngeen dend kooka bu boobaa dëkkandoo lay doon ci yow moo xam nag jullit la wala du jullit moo xam ku baax la wala ku dëng la moo xam sab xarit la wala sab noon la moo xam kuy rafetal di jëme ci yow la wala kuy ñaawal di jëme ci yow moo xam ku la jege ci mbokk la walla ab jaambur la ci yow daf laa sore ci mbokk lu mu ci mën a doon rek bu boobaa dëkkandoo lay tudd dëkkandoo googu am na ñetti àq dëkkandoo boo xam ne am na ñetti àq ak dëkkandoo boo xam ne ñaari àq la am ak dëkkandoo boo xam ne benn àq la am ñu wax ne dëkkandoo bi am ñetti àq mooy dëkkandoo bi nga xam ne sa mbokk la ci wàllu askan ba noppi di jullit ba noppi dëkk ak yow kooku seen diggante ñetti àq dox na ci àqi lislaam mbokkook lislaam gi ngeen téq war di ko jëflante dox na seen diggante mbokkook jege ñaale gi ngeen téq moom itam te borom bi tabaraka wa taala digle jokk ak bokk dox na seen diggante àqi dëkkandoo ji ngeen téq itam dox na seen diggante ñu ne dëkkandoo bi am ñaari àq mooy dëkkandoo bi nga xam ne jullit la waaye nag du sa mbokkum jege ñaale kooku séq ngeen aqi lislaam ak aqi dëkkandoo dëkkandoo bi am benn aq mooy dëkkandoo bi nga xam ne du jullit te du sa mbokk kooku séq ngeen aqi dëkkandoo rek ngeen séq aq yooyu nag benn bu ci nekk jullit daf ko war a xam di ko taxawee ndax lu ñuy laaj la bu ëllëgee dëkkandoo nag ay forme yu bari la ñu bari dañuy jàpp ne dëkkandoo mi ngi yem ci rek ci nga bokkal génn kër wala ngeen sësoo ay kër waaye dañuy wax ne ba ci ñeen fukki kër boo taxawee ci sa buntu kër ñeen fukki kër ci sa ndeyjoor ak ñeen fukki kër ci sa càmmoñ ak ñeen fukki kër ci sa kanam ak ci sa gannaaw ñoo ñëpp say dëkkandoo lañu kon loolu mooy li gën a fés ci dëkkandoo mooy koo bokkal génn kër wala ngeen jege ay kër waaye am na yeneen forme dëkkaale lu mel ne koo bokkal koy liggéeyee ngeen di fa daje ci waxtu wu nekk di bokk benn bureau wala bu ngeen ko bokkul it ngeen bokk benn place bu ngeen di liggéey wala ngeen bokk nekk ci marché wala ngeen bokk nekk ci tool wala ngeen bokk nekk ci école bokk banc bu ngeen di jànge wala buy ay professeur ñu bokk classe yu ñuy jàngale ñoo ñëpp ay dëkkandoo lañ yoo xam ne euh, ak yi dëkkandoo dox na seen diggante te war nañ ko rafetal bu baax a baax rafetal jëme ci dëkkandoo nag am na ngëneel lu rëy rëy rëy ci lislaam lislaam màggal na lool ak yi dëkkandoo ba yonente bi alayhi mi ngi wax ne jibril alayhi salaam doon na bari lu mu koy dénk ak ci dëkkandoo nee na ba mu jàpp ne sax sharia dana ñëw digle ne dëkkandoo na doon dëkkandoom su faatu ndax bari gum ko ko doon dégg hadis boobu Aïcha radiallahu anha moo ko nettali ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal ma zaala jibrilu yuusini bil jaar hatta danantu annahu sayuwarrisu mu ne jibril dañul di bari lu may dénk dëkkandoo ak nu ma war a taxawee ci ay àqam ba ma jàpp ne bis dana ñëw suñu borom tabaraka wa taala wàcce euh, aaya di wax ne dëkkandoo na doonu dëkkandoo loolu kon dalay fedd li ak ji nga xam ne dëkkandoo am na ko ci ki mu dëkkal suñu borom tabaraka wa taala wax ci alquran waabudullaha wala tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dil qurba wal yataama wal masaakiini wal jaari dil qurba wal jaari junubi wa saaxibi bil janbi wa bni sabil wa ma malakat aymaanukum inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faquur suratu nisa suñ borom bi mu jiitalee aqi boppam ne waabudullaha wala tusriku bihi shay'a aq boobu moo jiitu ci aq yépp muy aqi suñu borom tabaraka wa taala te mooy jaamu ko wéetal ko ci jaamu gi bañ koo bokkaale ak dara mu teg ci aqi wayjur mu ne wabil waalidayni ihsaana mu ne na ngeen rafetal jëme ci seeni dëkkandoo seeni wayjur na rafetal jëf lu baax jëme ci seeni wayjur mu ne wabisil qurba wal yataama wal masaakin na ngeen rafetal jëme ci seen mbokk yi leen jege rafetal jëme ci jirim yi rafetal jëme ci miskin yi waaye rafetal jëme ci dëkkandoo wal ci qurba dëkkandoo boo xam ne bu la jege ci mbokk la waaye mu ne wal jaaril junub ak dëkkandoo boo xam ne xëy na jegewula ci ak mbokk wa bi bil bi ak sa àndandoo bi nga xam ne dafa nekk ci sa wet xëy na duñ ko tuddee dëkkandoo waaye àndandoo la te loolu mooy li ma doon wax ci ki nga bokkal fu ngeen di liggéeye nga xam ne jamono bu nekk yéen a ngi ànd kooku itam lislaam dafa digle nga rafetal jëme ci moom ak i dëkkandoo nag buñ ko dee feet yu bari la waaye li muy bari bari lépp mën nañ koo tënk ci ñetti ak yu mag yoo xam ne ci lay ci def yépp soqi ko àq bu njëkk bi mooy al ihsaanu ilayhim di def lu baax jëme ci ñoom say dëkkandoo nga di leen defal lu baax aqu ñaaril ba kafful aza anhum di leen fegal lor di leen dawal lépp loo xam ne lu mën a nekk lor la bàyyi ko ci yow nga di ko fekk aqu ñetteel ba ihtimalul aza minhum ngay supporter nag lor juy bàyyi ko ci ñoom ni nga leen di dawale lor noonu itam nag ngay supporter sa kem kattan lor ji nga xam ne ñi ngi la koy lor ndax it doomu aadama euh, euh, dafa manqué ba tax na lu mu daw daw daw lor la léeg-léeg mu am lor yu mu la lor te du ko yëg sax su ko defee nag su fekkee lor ju mu la lor doo ko supporter kooku kon bu boobaa seenu dëkk du rafet moo tax kon na nga supporter sa kem kattan muñ sa kem kattan lor ji nga xam ne dana bàyyi ko ci moom bu ñëwee ci tomb bu njëkk bi mooy al ihsaanu ilal jiraan mooy nga rafetal jëme ci say dëkkandoo jële nañ ci abi shurayh al adawi qaala samiat udunaaya wa absarat aynaaya xiina takallama annabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam fa qaal man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim jaara wa fi riwayati muslim fal yuxsin ila jaari abi surahi moomu nee na sama ñaari nopp yii day dégg nañu sama bët yii itam mi ngi doon gis bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax kon li mu bëgg a wax mooy maa ko fekke nee na bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di wax ne ku gëm yàlla gëm bisu bu mujj ba di bisu yowmal xiyaam na nga teral sa dëkkandoo na nga teral sa dëkkandoo def lu baax jëme ci moom ci beneen riwaaya na nga rafetal jëme ci sa dëkkandoo lislaam egg na sax ci def bëggal aw yiw sa dëkkandoo mu boole ko ci ngëm yàlla maanaam soo bëggalee say dëkkandoo lu baax yéene leen lu baax loolu bokk na ci liy mottali sa ngëm yàlla jële nañ ci anas ibnu malik radiallahu anhu mu jële ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li aqihi aw qaala li jaari maa yuhibbu li nafsi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne kenn ci yéen ngëmam du mat <clears throat> li feeg bëggalul mbokkam wala ñu ne li feeg bëggalul dëkkandoom ñaari riwaay yépp la ñëwee li nga xam ne moom la bëggal boppam foo nga bëggal sa mbokkum jullit bëggal sa dëkkandoo li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp si ngëm yàlla doog a nekk ngëm goo xam ne gu mat la ñu jëlee ci abdullah ibni amrin radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xayrul ashaabi inda allah xayruhum li saahibi wa xayrul jiiraani inda allah xayruhum li jaari sunanu tirmidi yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne àndandoo yi ki ci gën fa yàlla mooy ci gën a baax ci ñi mu àndal koo xam ne su àndeek mbooloo mooy gën a baax ci ñoom lu mu leen mën a dimbalee dimbale leen ko bu amee ñam jox leen bu amee coono mu gàddu ko lépp loo xam ne bu ko defee mu amal leen njëriñ mu koy defal ñim àndal kooku la yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne moo gën fa yàlla ci àndandoo yi waaye mu ne dëkkandoo bi nga xam ne moo gën ci yàlla itam mooy dëkkandoo bi nga xam ne moo gën a baax ci ñi mu dëkkal moo gën a mën a def lu baax ci ñi mu dëkkal kooku moo gënal fa suñu borom tabaraka wa taala rafetal jëme ci dëkkandoo nag am na ay forme yu bari yu ñu ko mën a defee la ca jiitu mooy salaamatul qalbi alayhim ndax ñu bari buñ ne rafetal def lu baax dañuy jàpp ne mooy nga am alal di ko joxe kon ku amul alal mënoo def lu baax ñu bari loolu lañuy ñuy jàpp te fekk na du loolu dëgg la alal def na ci def lu baax waaye am na yeneen yu ñu mën a defe yu baax sax yoo xam ne léeg-léeg mooy gën alal moo tax la ca jiitu mooy nga musal sab xol ci ñoom a sab xol bu leen ci ëmbal aw ay sab xol na mucc bu leen ci ëmbal wenn ay nga bëggal leen aw yiw ndax dikk na ci buxaar ak muslim hadis boo xam ne anas moo ko det li yonente bi alayhi salatu wasalaam ne wallati nafsi bi yadi laa yuminu abdun atta yuhibba li jaari maa yuhibbu li nafsi boobu buxaar yooyu muslim génn nañ ko yonente bi alayhi giñ ne maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom laa yuminu abdun nee benn jaam ngëmam du mat atta yuhibba li jaari maa yuhibbu li nafsi li feeg bëggalul dëkkandoom li nga xam ne moom la bëggal boppam nee li feeg deful lool ngëm yàlla du mat ci moom loolu kon ak fedd li la goo xam ne lislaam daf koy fedd li ak ji nga xam ne euh, dëkkandoo am na ko ba su ko bëggalul li nga xam ne moom la bëggal boppam dafay nekk koo xam ne ngëb am lu manqué lay doon bokk na ci melokaan yi ñu mën a rafetale jëme ci dëkkandoo xër lool ci defal ko aw yiw moo xam lu néew la wala lu bari la ndax def lu baax moom euh, ka koy def bu mu naw la muy def waaye kañ koy defal bu mu xeeb lañ koy def lépp lu ñu day defal te yàlla tax bu ci xeeb dara ndax amoo pay gi lu mu tuuti tuuti mënoo ko fay yow ki la defal dara bul xeeb naan nangam doomu la ma defal loolee mu la defal lu mu tuuti tuuti mënoo ko fay waaye yow mi ko defalit bul new la nga def ndax la nga def bu la ko suñu borom tabaraka wa di fay danga nga xeeb lool la nga xam ne moom nga defoon ndax du la fay rek la nga defoon wa yasiduhum min fadlihi la da dalay dolli ki nga xam ne loo def lu mu bari bari bari mu dolli la kon waroo naw li nga xam ne moom ngay def moo tax mu ne li yunfiq zu ku am alal ju yaatu na nga dépenser dépense bu yaatu bul ngott comme yàlla may na la ni la yàlla joxe rek del dépenser noonu wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu allah nee na koo xam ne wërsëgam daf koo yamale tam nag na dépenser lu tolloog li mu am waaye bu mu jéem a toppandoo ña nga xam ne xëy na tolloowut ak ñoom wërsëg bay dugg ci coono yoo xam ne itam yàlla tegu ko moo tax mu teg te laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha yàlla day tegul nit ki lu dul li nga xam ne moom la ko jox ci ay moyens mbir mu xew mu ne rek la la ca yàlla jox ci ay man-man loolu rek la la ca gàll loo ca mënul rek gàllu la ko ci moo tax kon def lu baax jur bi waru cee xeb dara moo tax dikk na ci sayxul Buxaari yi ak muslim hadis boo xam ne Abi Hurayra moo ko nettali yonente bi alayhi salatu wasalaam ne yaa nisaa al muslimat laa taxqiranna jaaratun li jaaratiha walaw firsini chat mu ne yéen jigéeni jullit ñi benn dëkkandoo bu mu xeebal moroomum dëkkandoom lam koy jox doonte lu tolloog yeelub xar la yeelub xar xam ngeen ne taxu koo bari njariñ lool waaye mu ne doonte lool nga am ci man koo addiyal sa dëkkandoo nee na bu ko xeeb bu ko xeeb jox ko kon boo amee lu ko ëpp ah nga jox ko ko ndax ndax gannaaw lu néew loolu lañ la wax ne nga jox ko ko soo amee lu ko ëpp kon ci la gën a baaxit moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa wax abazar ne ko yaa abazarrin isa tabaxta maraqatan fa aksir maaha wa tuaid jiraanak axrajahu muslim yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon dénk abazarrin ne ko soo toggatee aw yàpp na baril ñeex ma ngir nga man caa nemmiku sa dëkkandoo yi ngir nga man caa nemmi ko sa dëkkandoo yi may leen ca may leen ca ndax su ñeex ma yaatoo xay na bu ndawal gi yaatuwut itam ñeex ma moom mën a yaatu ba kenn ku ca nekk mën caa laal mu ne ko loolu ah, de de ko def l'islam kon jox na lool rafetal jëme ci dëkkandoo importance boo xam ne bu rëy la dikk na ci sayihul Buxaari ci hadis boo xam ne Aïcha moo ko nekk radiallahu anha nee na dana woon yonente bi alayhi salatu wasalaam inna lii jaariin ne ko man de damaa am ñaari dëkkandoo fa ila ayihima uhdi ñoom ñaar kan laa ci addiyal kan laa ciy jox bu may joxe mu ne ko ila aqrabihima minki baaban mu ne ko ki la ci gën a jege buntu kër ndax ki la ci gën a jege buntu kër muy gën a xam li xew ci sa kër mooy gën a xam la xew ci sa kër boo wàccee dem mu ñëw andi ay sërica ñaare léeg-léeg ay doomam ñooy jaxasoog say doom buñ dee togg ci kër ga dara itam ñaare bootul ñoom ñoo koy dégg ci seen biir kër moo tax mu ne ko ñi la ki a jege kooku sooy addiyaal na nga ko jox ma ci ki gën a jege ci bunt ndax nit ki sax mën ngeen a sësoo lool ki nga xam ne seeni buntu kër dafa jàkkaarloo kooku li muy xam ci yow ki nga taqalool te bu buntu këram féete neneen kooku sax du ko xam ci yow moo tax mu ne ko la gën a jege bunt ndax ki gën a jege bunt mooy xam liy dugg ak liy génn kon kooku looy joxe na nga tàmbalee ci moom bokk na ci forme yi ñuy rafetale jëme ci dëkkandoo itam di nuyoo ak di delloob nuyoo di nuyoo di leen nuyu boo robee sa dëkkandoo nga nuyu ko bu la nuyoo itam nga fay ngeen bañ a jaambarante comme niñ koy gise léegi ci yoo xam ne dañ koo jële ci ñeneen ñu dul ay jullit da gis ñoo xam ne ñu bokk benn kër ñoo xam ne du ñu xamante boo ñëwoon di laajte du ñu xamu nu mu tudd buñ ca xamee ba xam ca dara sant wala ñuy xam léeg-léeg sant wa rek lañuy ñuy xam njaay lañ xam wala jóob waaw bu ñëwee ne Mouhamad Njaay wala abdu Jóob wala yooyu dañ la xamuñu kooku kon loolu melokaan la yoo xam ne jullit ñaa koy dundee léegi waaye fekk na du dundiinu lislaam jaamurante googu jullit waru koo def digganteem mag moroomum jullitam bokk na ci itam di wuyu ab woote su fekkente ne daf laa woo am lu mu xewle woo la ca ci loo xam ne lu lislaam nangu ko ca woote la ndax ab jullit itam wërta woote ci loo xam ne lislaam nanguwul ko ca woote su amee mbégte euh, mel ne mu am doom walla mu am céet woo la ca nanga dem wuy ji su amee tiis itam nga yëg ko nanga nga dem euh, defal ko ca tiis wa muñ loo ko wétli ko ca la nga xam ne moo ko dal bokk na ca forme yi itam di nemmiku ay aajoom maanaam di yittewoo ay mbiram di faj ay aajoom te kem kattan loo ca man ndax am na aajo yoo xam ne doo nekk bañ di la ko wax waaye comme yéen a dëkk ñaare lu fa xew danga nga ko xam su ko defee loo ci yëg nga taxaw ci ci sa kem kattan ko boo yëgee ne am na fa ku feebar bul naan man waxuñu ma ko waaye soo ko yëgee rek demal seeti ko bu fekkente ne am na tiis wu ko dal moom itam soo ko yëgee demal nga defal ko ca tiis wa nga xam ne moo ko dal su fekkente ne am na mbégte itam nga dem ndokkeel ko ca mbégte ma su fekkente ne am na njuumte rëcc rëcc boo xam ne dal na ko jëm ci yow nga jéggal ko rëcc rëcc booba ndax doomu aadama niñ ko waxee fokk ay rëcc rëcc dafay bàyyi koo ci moom moo tax ñi nga xam ne ñoo doon mag ñu baax ñi jiitu woon muy asalafu saalix dañ daan nemmiku lool seeni dëkkandoo ak di yittewoo seeni mbir ñu ngi nettali ne ab addiyee daana ñëw ci benn waay ci saaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam am luñ ko addiyal jox ko ko da koy xool ne lii day diw moomu ci gën a yey dal koy yónnee kër diw moomu kooku itam xool ne lii day diw moomu ci gën danañ koy def ba mu dellu siwaat ci ki nga xam ne moo ko jëkkoon a moom wër a wër a wër ba dellu siwaat ci ki nga xam ne moom moo ko jëkkoon a moom ndax kenn ku nekk rek yéene moroomam li nga xam ne moom la yéene boppam moo tax abdullah ibnu amr abdullah ibnu amr radiallahu anhuma mas naa rendi benn gàtt euh, mu wax xale bi ko koy feesal ne ko soo feesee ba pare day na tàmbalee ci suñu dëkkandoo yahud bi ab yahud bu dendaloon yahud waaye mu ne ko na nga tàmbalee ci moom gis nga kon rafetal jëme ci dëkkandoo niñ la ko waxee sartuñ ci rek mu nekk ab jullit wax nañ la bu nekkee jullit ak xam moo gën a feddaliku waaye même bu nekkul ab jullit itam na nga rafetal dëkk yi nga xam ne moom ngeen dëkk eh, ngay def lu baax di jëme ci moom ndax loola sax mën naa doon lu ko xemmem loo yow diina ji nga nekk ndax lislaam yërmande ji mu ëmb ñépp la ko ëmbal yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko wax ne wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónniwuma la lu dul nga nekk yërmande ci bindif yépp moo tax ab jullit fu mu nekk l'islam bi muy dund li ci nekk ci jàmm ak li ci nekk ci xéewal ñëpp war nañ koo yëg ñëpp war nañ koo yëg ngir ñu xam ne l'islam moo gën leneen lu waaye nekk te du bokk na ci forme yi ñuy rafetale jëme ci ab jullit tam nag suturaal ko suturaal ko ndax yow mi dëkk ak moom li ngay xam ci ay rëcc rëccam ak yi xew këram ki dëkkut ak moom du ko xam kon nga di ko suturaal di ñoŋal ab deram maanaam lépp loo xam ne lu mën a yàq ab deram la nga bañ koo tasaare waaye kenn du def loo xam ci sa dëkkandoo rawatina nag ngeen bokk benn kër léeg-léeg sax dëkkandoo gi dem ba bokk benn néeg foofu fa la gën a te xatat parce que dëkkandoo ko lu mu gën a jege rek doomu aadama yi kenn ku ne gën a mën a gis sa sikki morom ki nga bokkal benn néeg wala ngeen bokk génn kër kooku lu mu mën a nëbbu nëbbu nëbbu ay sikk am na sikki yoo xam ne du du la ko la ko mën a nëbbu am na yuy xew ci moom yoo xam ne yow fokk da nga ko yëg su ko defee nag bokk na ci nga rafetal jëme ci moom nga suturaal ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ne ku suturaal ab jullit suñu borom tabaraka wa taala dana la suturaal bu yowmal xiyaame ab jullit wërta def bépp ñaawteef wala bépp njuumte bu mu yëg ci mbokkum jullitam di ko siiwal ak di ko tasaare lu dul na nga xam ne siiwal ga xëy na njariñ da caa nekk ndax nag bu fekkente ne koo xam ne li muy def luy lor la lor joo xam ne moom du yam ci moom mën naa lor ñu baree baree baree bari te su fekkente ne yëgal na ko ñi nga xam ne ñoom war nañ koo mën a faj danañ ko faj bu fekkente ne loola la loolu moom boobaa duñ ko tuddi ak siiwal amma wër di ko wax rek di ko siiwal siiwal goo xam ne yàqub deram rek nga ciy jublu waaye du doon lu koy faj na sax mu doon loo xam ne rëcc rëcc la boo xam ne bu ko gaar rek la waaye moom ci boppam sax ma koy rëccu loolu ab julit wërta wër di ko tasaare borom baa ngi naan inna allazina yuhibbuna an tashia alfaxishatu fi alladina amanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira wallahu yaalam wa antum la taalamun suñ borom ne ñi nga xam ne dañuy bëgg bu aw ñaawteef amee mu siiw an tashia alfaxishatu fi alladina amanu nee na ñooñu lahum adabun alimun fi dunia wal axira nee na ñooñu mbugal mu metti danañ dajeeg moom ci adduna ak alaxira kon suturaal ab julit bokk na ci li gën a rëy ci rafetal euh, jëme ci moom kon forme yi ñu mën a rafetale jëme ci dëkkandoo bari na lool niñ ko waxee mooy nga ëmbal ko aw yiw bañ koo ëmbal genn mbañeel ci sa biir xol ndax loolu ab jullit moo waru koo ëmbal benn jullit dafa rawati nag dëkkandoo ndax borom bi mi ngi digle ne bokk na ci ñaan yi ngeen di ñaan di wax ne wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu kooku ci ñaanub jullit la bokk walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala tajal fii qulubina la lillazina amul yàlla yàlla boo def ak mbañeel ak ak noonoo ci sunu xol ñu ëmbal ko ab julit loolu julit bu ne war nga koy ñaan ndax bu la yàlla nattoo nga bañ ab julit rek natt bu rëy rëy rëy ci nga nekk fekkee ki nga bañ julit dëgg la waaye nga bañ ko loola yow boobaa li muy tekki muy ngëm yàlla gu wàññi ci yow la loolu lay tekki bu boobaa te mbañeel ga bootul day gën a yokk ndax gannaaw ab julit la suñu borom tabaraka wa taala daf koy gën di teral daf koy gën di teral su ko defee nag yow loola di la gën di naqari su ko defee musiba mu rëy rëy rëy lay doon moo tax jullit di war a daw lépp loo xam ne luy tax eh, ak noonoo ak mbañeel di dox digganteem ak mbokkum jullitam amma ñaareelu àq bi mooy kappul aza anhum mooy nga di leen dawal lor mooy ngay dawal lor sa dëkkandoo dikk na ci Buxaari yoog Muslim ci addis boo xam ne Abi Hurayra moo ko nettali yonente bi alayhi salatu wasalaam ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yuzi jaara koo xam ne gëm nga yàlla gëm ne bis bu mujj ba dana ñëw bu mu lor dëkkandoom bu mu lor dëkkandoom ba tey ñu dellu nettaliwaat mook Buxaari yoog Muslim yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne wallahi la yumin wallahi la yumin قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa toog ba yàgg mu ne gëmul yàlla wallaahi gëmul yàlla gëmul yàlla saaba yi ne ko waaw kan la yaa rasulullah ki nga naan gëmul yàlla mu ne ki nga xam ne ay dëkkandoom fu ñu toll ñu ngi ragal aw ayam na ñu ngi koy tiit ki dëkk ci koñ bi wala mu dëkk ci kër gi koo xam ne ñëpp dañ koo ragal fu mu dugg see ñëpp la noppi leen lu waaye doon def yoroon làq ko lu waaye doon wax noppi ngir ragal gu ñu ko ragal nee ne kooku ngëm yàlla nekkul ci moom kon dëkkandoo bi dafa war a fexe ba ay dëkkandoom ñeme ko yaakaar ci moom aw yiw lu jafe sax ñu ne bu ñëwee dana yomb waaye buñ nekkoon ci lu yomb ci jàmb sax ñu ne bu ñëw bu diw ñëwee mu yàqu loolu melokaan woowu ku ko yor na nga yëg ne melokaanu jullit euh, nekkul ci moom ci riwaayatu muslim mu ne laa yadxulul jannata man laa yamanu jaaruhu bawaa'iqa mu ne day koo xam ne ay dëkkandoom fu ñu toll ña ngay ragal aw ayam nee na kooku day du dugg aljanna abi hurayra radiallahu anhu nettali na nee na am na benn waay bu mos a ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko jàmbat dëkkandoom bu koy lor ne daal moom dëkkandoom da koy lor rek mu ñëw yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fasbir demal nga muñ mu dikkaat weneen yoon yonente bi alayhi salaam ne ko demal nga muñ ba muy ñett yoon mu ne ko demal nga génne say bagage ca mbedd ma nga teg ko ku fa romb rek ne la looy def fii ne ko sama dëkkandoo moom ma lor xajatuma ci sama kër ndax sama dëkkandoo moo ma lor ba maa ngi jéem a seet fu ma dem waaja def noonu xëy rek génne bagage am yëpp ca mbedd ma aw foofu ku romb ne ko diwlu xew mu ne man sama dëkkandoo moom ma lor mënatuma dëkk ak moom ñu ne kooku day yal na ko yàlla teg nangam kenn ku rek di ko kooku moo bon kooku day moom yàlla alko waa ji dëkkandoo ba di dégg rek ku fa romb rek moolu bu mujj mu ñëw di ko lewaayu ne ko daal duggaatal sa kër duggalal say ba daal bu soobee yàlla daal dootoo dégg ci man dara loo xam ne lu ñaaw la wala nga di ko gis ci man noona def waa ji daal di delsiwaat ah mu doog a fekk lor ji nga xam ne eh, moom la ko doon lor Abu Hurayra mi ngi nettali ne mas nañoo wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko inna fulanan tusalli layla wa tasuumu nahar wa fi lisaaniha sayun tusi ñu koy taggal benn jigéen moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko moom day waxuma la julli julli juróom yi waaye day naa naafila guddi waxuma la woor weeru koor waaye fu mu day koor koori sunna waaye nag aw làmmiñam de moom dafa ñaaw lool day lor ay dëkkandoom yonente bi alayhi salaam ne laa xayra fiha hiya fi naar mu di leen kooku day dara baaxul ci moom mi ngi ma nga safara lay def mu di leen kooku safara lay def ñu wax ko beneen jigéen boo xam dañ ne ko moom tusallil maktuba wa tasuumu ramadan ñu ne ko moom daal julli juróom rek lay julli ay naafila ak yooyu sax moom bariwul lu mu koy def koori sunna it bërilewu ko weeru koor rek lay woo wa tatasaddaqu bil aswaar dana sarxe it waaye la muy sarxe du bari ndax dafa amul lu bari ñu waaye nag ñu ne ko moom day ku sàmm aw làmmiñam la du lor benn dëkkandoo ci làmmiñam yonente bi alayhi salaatu wa salaam hiya fil janna leen kooku de ma nga ci aljanna ndax ni mu dikkee ci hadisu Muaz ba yonente bi alayhi salatu wasalaam la mu ko waxoon ne ko hal yakubbu annaasu fi nnaari illa xasaidu alsinatihim ba mu ko dénkee yam koy dénk ba noppi génn aw làmmiñam ne ko kuffa anka haasa moytul ma kii Muaz ne ko wax ndax ñun li ñuy wax dañ ñu koy jàppe mu ne ko xanaa yow Muaz xamoo ne waa safara la ëpp ca la leen fa dugal mooy loo xam ne seenu làmmiñ a ko wax kon moo tax nit ki lu muy mën a def ci jaamu yàlla te aw làmmiñam jaamu yàlla googu du ko jariñ ndax bu ëllëgee dañ koy faye ñooñu nga xam ne ñoom la doon lor ñoom la doon lor ci aw làmmiñam su ko defee rek duutu dese dara bu la muy fay matul sax ñu jël bàkkaar ñoo ñooñu jox ko moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne boroom làmmiñ wu ñaaw woowu euh, safara lay mujj bu ëllëgee kon loolu màggal la goo xam ne lislaam màggal na ko ak dëkkandoo lool ak tere lool koo xam ne yaa ngi koy lor lor ko bokk na ci bakkaar yu mag yi kabaa'iru zunubi lor dëkkandoo ci la bokk dikk na ci euh, saxiix jële ci abdullah ibni mas'ud radiallahu anhu mu ne su ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu zanbi am na ku masalaak yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko bakkaar yi ban moo ci gën a mag mu ne ko an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak mu ne ko nga wutal yàlla moroom te moom moo la bind bu nekk nga di ko wutal moroom di wutal koo koy dendaleel kooku gën a ci bàkkaar yi xultu ne ma ko ak ban qaala an taqtula waladaka xasiyata an mu ne ko nga rey sa doom ngir bañ mu bokk ak yow sa wërsëg bañ wërsëg wu yaatu ba sa bëgg sa wërsëg yaatu ba tax ngay bañu njaboot ba boo amee doom danga koy rey wala ngay sabab lu bañ a am doom ngir ne dama bëgg sama wërsëg mën a yaatu loolu ci bakkaar yi gën a rëy la bokk mu ne ko ak ban mu ne ko yi tusaaniya xalilata jaarik mu ne ko nag nit ki di njaaloog yi dëkkandoom mu njaaloog jabari dëkkandoom njaaloo moom fépp la aram waaye fu mu gënatee rëy nag nit ki di ko def koo xam ne eh, dëkkandoom la kooku ci kadaa kabairi bakkaar yi gën a rëy rëy rëy ci la bokk dikk na ci masalalu imam ahmad yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne la an yasriqa min ahli asrati abyatin aycharu min an yasriqa min bayti jaari mu ne nit ki sàcc ci fukki kër nee bakkaaram moo gën a woyof mu sàcc genn càcc ci néeg dëkkandoom mu sàcc dëkkandoom genn càcc ak mu sàcc fukki kër yoo xam ne fenn fu nekk sàcc na fa muy fukki sàcc fukki càcc yooyu ñoo gën a néew bakkaar genn càcc gi nga xam ne da ko sàcc ki nga dëkkal ngeen bokk benn néeg wala ngeen tasoo ay néeg wala ngeen tasoo kër nga sàcc nee na bàkkaar ba euh, ca la gën a téere bis boobu axrajahu ahmad euh, lor dëkkandoo moom itam am na ay forme yu baree baree baree bari bokk na ca di ko tooñ di ko lor ci njabootam ay doomam wala di ko lor ci ay jigéenam walla di ko lëjal ci ay kàddu yoo xam ne da nga koy yëkkati ba mu di ko seen lu mel li ñu gis léegi moo xam rajo la booy déglu moo xam wax la jooy wax waaye yëkkati ko ba mu weesu euh, sa dégg yow ba egg ci sa dëkkandoo ba di leen lor ndax wax ji lu mu am am solo ak loo jàpp jàpp jàpp ne baax na mën naa am sax ñi ci desit soxla nañ ko waaye du waxtu woowu lañ ko soxla bu ne lii may déglu am na solo rek kon ñëpp a ko bëgg a déglu déedéet mën ñëpp a ko bëgg a déglu waaye mën naa am du waxtu am na ku liggéey ba sonn ba ñëw moom bëgg a nelaw kooku même déglu alquran sax li muy baax baax baax waxtu woowu moom nelawam yooyu moo ko gën a yitteel moom nelaw ba jóg ba pare ba ak wéram jël ci mu doog a man a déglu alquran wala mu doog a mën a déglu leneen kon li ngay déglu loo ko rafetlu rafetlu rafetlu gënal diisoo woo ci ñi nga dendal bañ dala soxla nan ko yamale ko rek yow ci sab dégg yow kepp waaye da gis ko ubbi rajoom euh, ba mu xumb lool jàpp daal lii muy def moom ñëpp a ko aajoo mi ngi jariñaale sax ñeneen ñi te fekk na mën naa am li ngay leen di digal sax lu baax la waaye mën naa am yaa ngi leen ciy lor ndax mën naa am ku feebar mën naa am ku nelawul mën naa am ku am waxtaan gan di waxtaan ak moom nga seene ko ba mënatu la mënatu la wax loola bu boobaa euh, lor lay doon ci dëkkandoo bokk na ci itam say gone nga jàkk leen a téye ñuy foo ak di yàq yi nga xam ne sa dëkkandoo da ko am moo xam otoom bu mu gaari ci buntu këram la wala ay garabam la wala ay yëfam la daal yoo xam ne say gone dañu fay dem wala di fëgg ay buntam wala di sone ay këram yooyu yëpp dëkkandoo bi daf ko war di sàmm ci ak njabootam ba lu ci du ci lor dëkkandoo bokk na ci itam di yéeg ci kaw yi étage yoo xam ne da ngay tiim say dëkkandoo eh, yoo xam ne mën naa am ñoom seenu jekk demeewul noona nga di ko def wala sax njaboot di ko def di leen tiim di xew di xam la xew ci kër ga yëpp ba di leen seene lool loolu itam ku dëkk ak i dëkkandoo war ngay bàyyi xel ci sa njaboot ci loolu ba xam ñu ngi koy defam déet di leen ko tere bu aajaa nga yëkkati seen miir ba du ñu mën a yër la ne ca kër ya nga xam ne moom lañ dendal nga di ko def ndax mën naa doon lor yu sew yoo xam ne ñu ngi koy lor dëkkandoo yi te duñ ko mën a jàmbat te fekk na lu leen metti lool la eh, fekk na bakkaar la na la dal julal jural bu ëllëgee bokk na ci melokaani lor dëkkandoo itam di xam ne ci koñ jullit ña nekk foofu xemmee mu ñu dëkk ak moom dëkk xemmee mu ñu dëkk ak moom nga luye fa koo xam ne ku doy waar la koo xam ne melokaan yamu yor ak la muy doxal mën naa yàq njabootu ña dëkk ca koñ ba te yow yaa ko fa indi yow yaa luye kon boo gisee nit koo xam ne melokaan ba mu yor ak na muy doxale kat du loo xam ne lu lislaam nangu la lu mën a yàq doomi jullit ñi la kooku bëggu xaalis warul la tax nga di ko luye ci sa ci sa biir kër yooyu yëpp bokk na ci yoo xam ne dañ koy gis mu nekk lor dëkkandoo moo tax ibnu rajab rahimahullah di wax ne mazhabu ma ahmad wa malik an yumnaa al jaar min an yatasarrafa fi xaasi mulki bi ma yadurru jaar bi ma yadurru bi jaar yi nee na boo demee ci mazhabu imam malik ak mazhabu imam ahmad nee na la ñu atte mooy dëkkandoo bi am nañu droit tere ko muy jëfandiku ci li mu moom jëfandiku boo xam ne daana lor dëkkandoo maanaam ku ñu dëkkal mu yor kër bëgg fa luyee nit ñoo xam ne dañ fay jaay sàngara wala dañ fay dajale ay xale yu jigéen di mooy walla balab la boo xam ne dañ fay dajale nit ñi di musique mu nar fa luyee koo xam ne loolu lay def nee nag kooku ci yoon dañ ko war a tere donte moo moom këram dañ ko war a tere ne ko lii doo ko def loolu l'islam lu mu digle na ndax lor ga nga xam ne moom lay lor ay dëkkandoom moo tax ñu wat ko euh, tere lool bokk na ci itam ci lor dëkkandoo nga am loo séq ak moom maanaam ngeen bokk génn kër kër gi ngeen séddoo ko léeg-léeg mu am ñoo xam ne seen papa dafa faatu ñu la kër gi ca digg ba kooku dañuy wax ne soo demee bay jaay sa wàll waroo koo jaay ci diisoo woo ci ki nga xam ne moom nga dëkkal ndax man ngaa dem jaay ko koo xam ne mu ñu dëkk ak moom ci biir kër gi di ko lool kon moom moo gën a am priorité ci jënd ko su demee bu mënu koo jënd nag ah bu boobaa nga doog a seet keneen koo ko jaay te koo koy jaay nga war a fexe ba mu doon koo xam ne du ko waaye nga dem indi koo xam ne ku koy lor la loolu l'islam def koy tere moo tax mu ne man kaana lahu ardun fa araada an yabiaha fal yaridha ala jaari yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne ku am suuf bëgg koo jaay na ko njëkk a proposé sa dëkkandoo bi nga dellal ne ko man kat sama kër gii dama koy jaay wala sama terrain bi dama koy jaay wala kër gii nu seq man sama néeg dama koy jaay wala même dama koy luyee sax na ko ko laaj ba xam moom dana ko soxla pour luyee ko wala mu luyee ko mbokkam wala déet wala léeg-léeg sax nit ki luyee ko te dayewu ko dara waaye pour récupérer ko pour bañ keneen dégg fi ku koy seen kon yooyu yëpp forme la yoo xam ne euh, mënees na cee lor dëkkandoo bokk na ca lor dëkkandoo itam ca na mu gën a grave nag mooy di lu ñutu ay secret mën a dëkk ak moom ba pare di liggéeyal ñeneen ci moom maanaam am ñeneen ñoo xam ne bëgg nañoo xam ay mbiram yoo xam ne yaa leen di renseigner ci moom yaa leen di wax aar bi muy dugg ak aar bi muy génn ak ñi koy seet seek yooyu yëpp yow yaa leen koy wax di leen renseigner ci moom ba mu mën koo jural lor joo xam ne ju rëy lay doon loolu bokk na ci lor yi gën a rëy yoo xam ne euh, dëkkandoo mën na ko lor dëkkandoo am na àqu ñetteel bi bi nga xam ne nag moom mooy nga gàddu nag lor ci moom maanaam ngay supporter lor ji nga xam ne dana di jóge ci moom léeg-léeg ngir njuumte lay doon wala ak càggante wala ak ñàkk yëg wala ak ñàkk a xam ndax ni nga xamante ne noonu la lay lore yow itam noonu nga koy lore te du ko yëg kon nag kenn ku nekk war nay muñal moroom ma kem kattanam di supporter la nga xam ne itam moom la mën a supporter borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne idfa billati hiya ahsanu sayyi'a dafa wax ne yow saa bu ñu la defee lu ñaaw na nga ko jañee lu baax xam ngeen ne tey lu taq miir bi tey su taqoon li ko mën a setal mooy ndox mu set waaye bu ñu indee ndox mu takk ne moom day gën a takk kon lu ñaaw fu mu amee lu ñaaw lu rafet moo ko mën a dindi waaye lu ñaaw ne moom su ñëwee mbir ma day gën a ñaaw rek borom bi nag nee na ku def lu ñaaw moom li mu mérité mooy lu ñaaw wa jasaau sayiatin lu misluha ki def lu ñaaw li mu mérité ñu fay ko ko mooy lu ñaaw waaye na yow mu diggale ne fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala mu ne koo xam ne jéggale nga def nañ la lu ñaaw amoon nga droit delloo lu ñaaw ndax borom bi nee na muy bañ bañ bañ wax ju ñaaw nangu na ko ci ku ñu tooñ laa yuhibbu llahu aljahra bi su'i min al qawli illa man zulim illa man zulim su dañ laa tooñ moom wax la lu ñaaw ñuy bañ bañ wax ñaaw am nga droit delloo wax ju ñaaw jooju am nga droit delloo ko waaye nit gënul ci yow gënul ci yow la gën mooy nga baal ko ba noppi def lu rafet jëme ci moom borom bi nee na soo ko defee man maa lay fay soo ko defee maa lay fay fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah loolu moo war a doon war a melokaanu jullit borom bi della wax ne wala man sabara wa gafara in dalika la min asmi l umur nee na koo xam ne ñu ngi lay lool ngay muñ di jéggale na nga xam ne day yow yaa ngi ci mbir yoo xam ne yu dëgër la ci sa diine diine ju dëgër a dëgër a eh, jële nañ ci alxasanul basri rahimahullah mu ne laysa xosnul jiwaari kafful aza xosnul jiwaar asabru alal aza xasanul basri nee na rafetal dëkkandoo du rek nga ne du ma lor sama dëkkandoo du ma ko tooñ waaye nee na rafetal dëkkandoo dëgg nee na mooy nga mën a supporter ak tooñ bu la tooñee nga gàddu tooñ ga muñ ko jéggal ko dikk na ci masanadu imam ahmad jële ci abi zarrin radiallahu anhu qaal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allaha azza wa jal yuhibbu salaata wa yubqidu salaata ne yonente bi alayhi salatu wasalam ne yàlla bëgg na ñett bañ na ñett mu tudd ca ñett ña nga xam ne bëgg na leen rajulun kaana lahu jaara suu'in yuzihi fa yasbir ala aza waa joo xam ne nee na yàlla da koo nattoo mu am dëkkandoo bu ñaaw jikko dëkkandoo bu ñaaw aw dëkkiin nee na mu koy lor muy muñ atta yakfiyahu llahu iyahu bi xayatin aw ma aw mawt nee na ba yàlla fegal ko ci dund wala ci dee benn waaja faatu wala mu tuxu wala daal yàlla tàggale ni nee na kooku bokk na ci ñi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala eh, bëgg na leen lool moo tax asalafu saaleh ñoom dëkkandoo bu baax daawuñu ko nangoo weccee dara daawuñu ko nangoo weccee dara ñu ngi wax ne abul jaham al adawi mat naa jaay këram ci téeméeri dërëm téeméeri dërëm jamono boobu lu bari la waaye nag dafa dëkkoon ak ku ñuy wax Saïd ibn al mu baax lool bi ko waa ji fay téeméeri dërëm ba pare nag mu ne ko waaw loo may fay ci sama dëkkandoo bi nag dëkkandoo bu baax bii nga xam ne moom la dëkkandoo dama la koy jaayaale waa ji nag waaw hal yastari jiwaat ndax dëkk dëkkandoo kenn dana ko jaay mu ne waaw waaw bu dana ne dëkkandoo bi mënoo cee fay dara kon delloo ma sama kër waaw parce que téeméeri dërëm yii moom dëkkandoo bi lim ma doon jariñ moo ma gënal téeméeri jëriñ dërëm bi kon delloo ma sama kër daal ne ko moom dëkkandoo la boo xam ne du ma bàyyi boo xam ne su fekkente ne toog naa gisuma dana ma laajte su ma gisee daf may yaatal dalal ma lool su ma fàddoo nekkuma fi ak sant nee na mu sàmmal ma sama njaboot sàmmal ma sama alal su fekkente ne teewe naa ab jotaay mu bokk ma boole ma ci ñi koy gën a jege su fekkee am naa ajo su ma ko ko diisee nee na mu faj ajo ji ne même bu ma ko laajul sax day jekki-jekki naan ma ndax yow amoo aajo di ma laaj ndax yow est que amoo benn yitte boo yitte woo mu ne su fekkente ne am na musiba mu ma dal ci xew-xewi jamono nee na day ñëw taxaw ànd ak man ba coono booba teggi ko mu ne dëkkandoo bu mel noonu nag du du ma ko weccee dara ñu ne bi ko Saïd ibn la as déggee muy dëkkandoo boobu mu doon tagg daf koy yónneewaat yeneen téeméeri dërëm jaay na kër gi téeméeri dërëm kooku yónnee war ko yeneen téeméeri dërëm booleel ko ci kon moo lay xamal ne kon ñoom fonkoon nañu lool dëkkandoo ci di taxaw ci ay aqam waaye di fekk lor joo xam ne da ko koy lor kon ci tënk niñ ko waxee aqi dëkkandoo yi génnul ñett yi deel def lu baax jëme ci moom sa kem kattan def lu baax nag tekkiwul alal rek waaye di wax ci moom lu rafet foo toogee ci ak place ñu bëgg a seede ci moom lu ñaaw seedal ci moom lu rafet ndax foo xamee ci moom benn bu ñaaw xam nga ci moom fukk yu rafet ndax nit ñi dañoo gën a préféré yu rafet ñaaw yi rek di ko wax waaye li ñu xam ci yu rafet yi itam bari na ndax garaw ki nga dëkkal ak jullit la dëkk la dana rëccile di def lu ñaaw waaye itam nag dana def lu baax lu baree baree bari lu baax li nañ daanaka nit ñi dañ koy jëlale dañ koy xeeb lu bon li nañ bi di naw di ko réyal moo tax borom bi tabaraka wa taala ne idfa billati hiya ahsan yow toujours deel joxe li gën a rafet nit ki saa bu defee bu ñaaw andil fukk yi mu le muure ko benn bu ñaaw boobu soo fàttali ko su la tooñee benn bi seetal yeneen bisi yu rafet yi mu doon def ci yow lu baax li mu daan def ci yow na mu la daan dimbale soo xoolee yooyu yëpp rek da ko daal di mën a fege boobu kon foo fekkee ñuy bëgg a yàq sa dëru dëkkandoo te yow nga bokk ci ña gën a mën a seere ndax lu gën a ba di naan laa jël diw mii moo dëkk ak moom yow la ñuy jël témoin buñ koy xas yow boo egtee yow la ñuy jël témoin kon nag la nga war a wax nga war a seede ngir yàlla moo tax borom bi ne eh, kunu qawamina bil qisti suhadaa lillah ya ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qist suhadaa lillah walaw ala anfusikum aw il walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima mu ne yéen ñi gëm yàlla dee leen seede ak maanu bu ngeen di seede na yàlla rek sax bu seede ngir kenn kon dëkkandoo bi seedeel ci moom lu baax comme ñi ngi bëgg a yàq ab daram te nga xam ci moom lu rafet yow seedeel ci moom lu rafet loolu nga xam ne euh, moom nga xam ci moom loolu ak rafetal la jëme ci moom ñaareel ba di ko fegal lor sa kem kattan di ko fegal lor muy benn wax bu ñaaw bu mu jóge ci sa làmmiñ jëm ci moom ak loo mën a xam ci moom wat waxtaanu jotaay bu mu neex ba tax ngay nettali ci moom loo xam ne lu ñaaw la donte moo ko def yow suturaal ko sa digganteeg sa bopp ñetteel ba itam lor ji nga xam ne mu ngi la koy lor itam na nga ko muñ sa kem kattan waaye waxuñu muñ koo xam ne kat waxoo ko ko waaye koo dem yaa koy jàmbat ku ñëw nga jàmbat ko ne ko sama dëkkandoo bi nii la may wax lii de kon loolu muñoo ko soo ko muñee da nga koy muñ sa digganteeg sa borom soo ne demee ba mënoo koo ñàkk a wax doomu aadama wax ko ko moom ci boppam ndax moom la yitteel maanaam ayibi nit bala nga koo wax keneen koo da ci am bakkaar wax ko borom gannaaw mënatoo ko denc toogal ak moom ne ko yow kat nangam ak nangam ak nga may lor muñ naa ko ba tàyyi waaye mënatuma koo supporté mën naa am xëy na lu mu yëgul woon su ko defee mu daal koy bàyyi ci waaye moo gën nag di ko jàllale ci keneen muy doon loo xam ne eh, luy ñaawal sa dëkkandoo la kon nag l'islam ni ñu ko xamee eh, da cee am loo xam ne suñu digganteek suñu borom la waaye da cee am loo xam ne itam suñu diggante la ndax l'islam dafa ñëw xeel doomu aadama ci kaw suuf ni mu koy maye ak texe bu ëllëgee bu delloo ci boromam jomal xiyam doomu aadama ne li koy may jàmm ci kaw suuf mooy mu déggoo ak doom aadama yi muy dundal ci kaw suuf am ak ñoom jàmm am alal rek wala am daraja wala ami mbooloo taxu fee am jàmm su fekkente ne amoo jàmm ñi nga xam ne ñoom ngay dëkkal ci kaw suuf alal jooju dana mujj dootoo ko tal mbooloo mi dana mujj dootoo ko tal daraja ji dana mu dootoo ko tal léeg nga dem ba ko gis ne benn bi waaye ne man dëkk bi xaja xajatuma fi koo xam dafa dem ba xoli nit ñëpp rejeté ko kenn mënati koo supporté ak lu mu yaatu yaatu kër ak lu mu am am ay moyen day mujj rek gàddaay dem dem feneen lu dëkk bi xajatu ba fi moo woykat wa ne euh, nee amul benn dëkk boo xam ne fa wallahi laa la laa tadiqul ardu bi ahliha walakinna axlaaqa rijaali tadiqu nee na amul fenn suuf soo xam ne dana xatte ña fa dëkk suuf su mën a doon rek ña fa dëkk xaj na maa daa xat aradin bi ahliha walakinna axlaaqa rijaali nag tadiqu waaye nee na jikko yi nag mooy dem ba xat jikko yi mooy dem ba xat kon nag loolu bunt la boo xam ne nañ koy bàyyi xel bu baax di ko di ko nafar di rafetal suñu digganteeg suñuy dëkkandoo di def ci ñoom lu baax di wax ci ñoom lu baax te xam ne loolu bokk na ci li nga xam ne lu mën a gën a tasaare l'islam la ndax ñi nga dëkkal te sax xëy na bokku leen ay pas-pas donte jullit la ñuy tuddoo waaye xëy na l'islam léeragul ci seen bopp loola mooy ba gën a efficace ci xëcc ci leen ci l'islam mooy li la l'islam sant ci ñoom nga di ko def mooy rafetalal jëme ci ñoom sa kem kattan di leen wan taarub l'islam loolu soo ko defee rek waaye soo leen da jàppee daale jàppe ay noon a ah da nga dën dëkk ak ñoom dëkk bu metti te itam dootu leen mën a andi ci biir lislaamati maanaam jullit moom du jàppe kenn noonu lu dul koo xam ne dafa nekk noonu bu yàlla waaye koo xam ne moom ci mbiri boppam rek la koy tooñ kooku moom du ko jàppe noonu li muy meree nit daal mooy loo xam ne moom dafa jalgati santaane borom bi tabaraka wa taala te loola itam dana ko ca laabiire kem kattanam ba mu xam ne xam na léegi nag dafa noor ci wéy ci bu ko defee nag mu doog koo dagg te saa yu bàyyee loola mu daal di àndaat ak moom waaye intérêt yi boppam képp moom jullit bi ci bi ci bàyyi kenn da koy jéem a muñ da koy jéem a support kon daal loolu mooy ci gàttal li nga xam ne moom lañu ñu tënkoon ci euh, bunt boobu euh, doon ko fàttalante yal na yàlla defal tawfiq may nu dëkkiin wu rafet suñu diggante suñuy dëkkandoo ba borom bi boole na ci ñi nga xam ne nee na bu ëllëgee dañuy dugg aljanna nekk ay mbokk wa nasaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilin laa yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi muxrajin ñooñu yàlla ci yàlla boole wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulilah ñu ngi